Euh, nii nga xam ne kon noonu ngeen di encourager équipe bi nga xam ne ñoom ñoo koy def ak télévision bi nga xam ne moo jógte ci programme boobu ngir di leen nemmekul yenn daara yu am solo yi nga xam ne muy école yooyu euh, seen i programme yu am solo ak seen i yu am maanaa yoo xam ne ñu ngi koy euh, doxal ta nekk fii ci biir dëkk bi ñu di ko jëli di leen ko présenter fii ci télévision bi tey nag mbokk yi gis ngeen ñoo ngi ci école boo xam ne école bi ngeen di seen sunu ginnaaw école bu am solo la école boo xam ne bu bu rëy ay résultat la école boo xam ne liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal l'islam di ko liggéeyal sëriñ bi ci biir dëkk bi ci élèves yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk loolu ama am solo la muy euh, institut Al Azhar Serigne Mbacké Bousso muy excellence bi nga xam ne yéen a koy seen te mu nekk euh, fii ci Touba garage yu Daarul Moxti tey mbokk yi fii la ñu doxantu si ngir fa yéene dugg ci biir école bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoom euh, ñoo di kilifa yi ginnaaw nag bañu ñu fa fekkee ki nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Bousso Hassane mi nga xam ne mooy saytu liggéey bi di directeur bi am nañu yéen a seq ak moom jotaay boo xam ne bu am solo la doon mu muy wàllu interview boo xam ne dana ci leeral lépp loo xam ne tënku na ci biir école bi ak nga xam ne ko noonu la ñuy doxalee njàng mi waaye itam incha allah a def benn genre visite boo xam ne danañu jéem a dugg ci yenn classes yi ngir présenter leen euh, jàngalekat yeeg élèves yeeg ñi nga xam ne kon noonu la ñuy tërale programme bi loolu yëpp incha allah ci kanam tuuti dana leer fi nga xam ne moom moo di ci biir école bi kon mbokk yi yéen bàyyi xel seen télévision As Samadiyya TV nañu ànd ak sunu caméraman Omar Sarr ñu dugg ci biir daara ji wan leen en image li nga xam ne kon moom moo di liggéey bi fii ci excellence Serigne Mbacké Bousso Touba garage yu Daarul Muxti Hazar ngeen jëf léegi nag euh, ñoo ngi ci bureau nag sëñ Abdou Guèye sëñ Abdou fii mooy sa bureau exactement liggéey bi fii lan la. macha allah Cheikh Bachir waaw fii la ñuy wax maktabu si unu talaba fii mooy bureau de surveillance fii maanaam li fi liggéeyee mooy chaque jour dañuy nekk dox ci xale yi ak jàngalekat yi daal li nga gis ni ay cahier texte la yoo xam ne jàngalekat dañ koy jël chaque jour ku ñëw cours boo def nga bind ko si après booy absent tamit danañ ko bind ñu mën a jël. li nga gis nii chaque jour tamit dañ ciy liggéey jàngalekat dañ ciy liggéey jàngalekat bu nekk si ñoom rek am nga si fooy boo ñëwee da ngay bind heure bi nga dugg ak heure nombre yi nga xam ne si ne moom nga def fii daal jàppal ne bànqaas la ci liggéey bi boo xamante ne si ne day dox diggante jàngalekat yi ak élèves ak direction bi di lépp loo xamante ne si jóg na mu mën koo régler dina ko régler lu mu mënti régler nag mu jàllale ko si directeur école bi daal maanaam daal ab tànk la ci biir école bi daal mën mënu ci mënta manqué ci école daal allah waaw ñi ngi sant nag bu baax a baax ñi ngi ci àndal muy jàngalekat yi ñoom ñi ngi ñu jàppale bu baax a baax a baax a ngi ñu jàppale bu baax a baax macha allah waaw kay jërë ngeen jëf mbokk yi kon léegi xam ngeen ne ñoo ngi ci biir euh, école bi war leen présenter lenn ci classe yi nga xam ne ñoo nekk fii ci excellence euh, Serigne euh, Mbacké Bousso ñoo ngi ak sëñ Abdou Gueye mi nga xam ne moo ñu ko war a présenter sëñ Abdou ñu bàyyi la ginnaaw ba nga nuyoo gis nga dugg nañ ci classe bi classe bi ñu dugg ban classe la waaw salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu Serigne Bachir ñi ngi lay ziare bu baax a baax di la dalal jàmm wax dëgg yàlla ñëw nga ci daara joo xamante ne si ne moom la ñuy wax excellence ñu ko wax école boo xamante ne al adar la ñu tudd ko sëñ bu Bousso incha allah tey nga ñëw seet si ñu mu nekk mbégte trop si ñun ndax li moom bokk na ci liggéey bi classe bi ñu dugg nii classe CI la CI bu dee ci arab moom la ñuy wax saful awul mooy CI dañ ci am nag A ak B fi mu ne classe bi ñu dugg nii mooy A bi allah comme gis nga ko moo bi mooy mooy bi gisee jàngalekat bi mi ngi ni taxaw di soxna Ndeye Fall moo yore mooy jëf arabe bi kii def France bi mu ngi ci beneen classe bi kooku Moussé Kane la tudd daal lii mooy nombre élèves yi par exemple ñi nga xamante ne si ne ñooy doog a dugg école ñoom lañ fiy dalal léeg-léeg nga gis ci koo xamante ne sax ci daara ji la jóge bu ñëwee te taxul mu mokkal wala mu mën lu bari bari léeg-léeg ñu indi ko fii mais macha allah ñu ngi ci gis effort ñu ngi ci gis résultat yu baax daal te ñoom it ñi nga xam ne ñoo yore classe bi maîtriser nañ classe bu baax a baax a baax fi ne xale boo tuturee mën a la ma nga ne demal yëkkati yëkkati ko daal macha allah noonu la euh, léegi ñu ngi ci beneen euh, classe ba tey ñoo ngi ci excellence Serigne Mbacké Bousso euh, classe bi ñu nag dugg si ñabdu fii ban classe la. macha allah Cheikh Bachir comme ni ñu la ko waxoon ci classe bële fii mooy classe spéciale ñu ko wax ci arab faslu xas xas maanaam ñi nga gis nii mooy ñi nga xam ne dañoo newoon si daar yi mokkal alquran. seeni at di yéeg bañ lu leen tardel nag moo tax ñu ubbi classe bi fi mu nekk nii dañuy boole fii ci classe bi dañuy boole CI ak CP bu ñu école fermée nag bu dee nañu def C1 C2 ku fi naroon am juróom-benni at pour am entrée en sixième soo jàngee soo jàngee ndax danañ la jàngal moom waaye boo jàngee góorgóorlu baax incha allah ñetti at ngay am daal di def daal di am CM2 allah ñii mooy classe bi. comme gisee ko nii ma def nii xam nga Touba moom boo fi ubbee école ne ko moo ko alxuraan ñëwal macha allah yaay mujj arrêté mais da am am lim ndax euh, na ko ba ñaane woon ci alxuraan xam naa moo tax barke ba wuy si ba xale yi ñi nga gis ñëpp dañoo mokk alxuraan li ci gën a yéeme mooy chaque jour année scolaire bu nekk bu école de ubbi wala école de fermi ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci classe yi dañuy bind kaamil jagleel ko école bi ko ñu jox koo xam ci spécial macha allah jàngalekat bi nag mooy Serigne Abdourahim Mbaye kii mooy jàngale français jàngalekat arabe bi mu ngi ci beneen bi comme li ma la waxoon moom dañ ci am A ak B par exemple kii moo fi nekk tey mooy def français bi mooy Abdourahim mbay keneen kii mi ngi tudd Mouhamed Dieng moo nekk ca arab moo nekk ca B ba mooy def arab bi macha allah ñoom it ñu am kii lañ daal ndax xale boo xam ne daa jóge daar ak daara ni mu dëkk gone gu jóge daara ni mel waaye fexe nañ ba canaliser xale yi téye leen bu baax di def ci ñoom xam-xam am importance macha allah waaw. jërëjëf sëñ Abdourahim ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. ni ko sëñ Abdou xam nga classe boobu nañ ko concentré lu waroon dem ci 6 ans ñu indi ko ci ñetti at loolu bu ngeen ko téye di ko liggéey mbaa du am benn jafe-jafe ak nu ñu koy contrôlé programme nu muy nu muy demee. waaw ñu ziar bu baax di nuyoo bu baax di leen sant ci teewaay bi ngeen def di wax ni waa loolu moom euh, lu liggéey la boo xam ni ñu ngi koy bëgg a taamu donte bu xaw a jafe la parce que xale yi bu ñëwee dañuy formation accélère lay doon parce que deux classes lay nekk mais ñi ci sant bu baax parce que booy bu ñëwee dañuy ànd ak benn benn niveau xam nga arxaan boo si jógee da ngay xaw a neex a jàngal tuuti moo tax liñ ci difficulté yi ñu ci am du du bëri loolu waaw certains élèves ñoo ñu koy posé mais du doon ñu ci ñu ci ëpp moom. duñ si am benn problème waaw donte nag am na liggéey bu am solo boo xam ni moom lañ ci taxaw bu baax a baax pour mën a réussir loolu waaw. ban cours ngay def nii. waaw fi mu toll nii ñoom mathématique la ñuy def activité numérique waaw activité numérique la def. jàngal nañ ko. tari na alxuraan ça veut dire kon mokkal na alxuraan ñëw na ci classe bi ñu ngi koy tëralal li nga xam ne moom moo di programme français bi tubaarkal loolu am solo la macha allah booy jàngal xale yu mel nii yan ban yëg-yëg am. waaw un peu de fierté da ngay da ngay am fierté tuuti si si si liggéey bi parce que tamit euh, li gën a am solo ci liggéey d'abord mooy xale yi ngeen am benn conviabilité maanaam daal ngeen xaw a am benn bëggeel bu am dox seen diggante te xale yi son aimables ñoom loolu lañu ñu njëkk a travailler si ñoom ba nga xam ni ñoom dañuy dañuy yàkkamti gis la yow tamit da nga leen di bëgg a dajawaat loolu su ko defee loolu day yombal liggéey bi loo bëgg installé ci ñoom tamit dafay dafay xaw a yomb waaw loolu loolu bokk na ci suñ suñ kii daal. ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel As-Samadiyya TV ba tey ñoo ngi ci excellence Serigne Mbacké Bousso euh, ñoo ngi waat ci beneen classe boo xam ne classe exceptionnelle la dañuy bàyyi Serigne Abdou Gueye mu présenté ñu classe boobule ñu fekk fi aussi jëmm joo xam ne jëmm ju am solo ju ràññeeku lool ci wàllu système éducatif ci diggante Touba ak euh, Mbacké ñu bàyyi la nga présenté ñu ko euh, def aussi présentation école bi ak classe bi ñu nekk nii. macha allah Cheikh Bachir comme classe yi ñu jaar yëpp classe bi mooy classe cinquième cinquième la kii bu dee ci arab ñu ngi ko wax saani aadaat yi waaw macha allah euh, proviseur bi ma taxawal nii ngeen fekk fii monsieur Loola moo leen yore histoire géographie wax dëgg yàlla taxaw ci école bi bu baax a baax a baax moom ci boppam beneen qualité la boo xamante ne si ne dafa ñëw dolli ko ci qualité bi fi ne woon renforcer ñu bu baax a baax a baax classe bi classe cinquième la. moom nag euh, amul euh, amul A ak be moom benn classe bi rek la daal moom comme nii moom xam naa moo tax nga xaw a gis mu demee nii comme ñoom ni nga leen gisee bépp lépp loo xamante ne si école publique bi moom lay jàng ci seen programme français dañuy jàng lépp ba pare nag arab moom dañ koy jàng arab bu ñu ko waxee mooy dañuy jàng diine ji jàng langu arab bi tamit yëpp lañ boole daal dara manqué wu ci lépp ñu ngi dox daal incha allah ci biir loolu sax da ci gis xam naa dinaa la ci jox benn xale boo xamante ne macha allah yaakaar naa ne daal ku war a ku ñu war a mën a jàppale la pour mu taxaw bu baax a baax ndax macha allah alquran ni mu koy def baax na neex na te mokkal na ko bu baax a baax proviseur moom duma la ko présenté ndax yéen a bokk ak daal mais jàpp na ci liggéey lu bare bare xam naa bala ñu jeex incha allah xam naa da koy ko jox kàddu incha allah waaw. allah euh, monsieur Lo moom yaakaar naa ne ñun waa Mbacke xam nañ ko bu baax a baax a baax euh, mi ngi def liggéey bu am solo. monsieur Lo ñu ngi lay fekk say ci classe bi yaakaar naa yaa ngi joxe cours histoire géographie la ndaa kon yaa ngi ci cours benn benn cours géographie euh, noo gisee école bi ak classe bi nga xam ne moom nga amee liggéey bi fu mu toll en tout cas li ma mën a wax rek mooy école bi moom macha allah voilà école modèle la ko parce que résultat yi moo koy moo koy prouvé ce sont des résultats officiels entrée en sixième 100 pour cent BFM 100 pour cent boo xoolee par exemple effectif bi di nga sentir ne c'est une classe pléthorique bari na élève trop voilà mais loolu lépp c'est parce que y a une forte demande ku nekk bëgg nga sa doom ñëw fi jàng te ñoom tamit amuñu habitude de rejeter très souvent ay ay ay demandes nit quoi voilà loolu la mais daal c'est une école modèle une école d'excellence waaw boo xam ne à chaque de chaque examen dinañu wane seen bopp à travers des résultats waaw. jërëjëf monsieur Lo ñu koy sant baax di ko gërëm wal ma élève bi ñoo ngi ak euh, sëñ Jaxate surtout ah kooku daa war a kooku moom du kimtaan quoi bu fekkente ne mën na alxuraan du kimtaan Jaxate kon ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la euh, cours bi ngeen doon def nii ban cours la d'abord. histoire euh, présentement jàkkaarloo table bi nga présenté ñu xam naa titrage bi. la végétation. végétation. d'accord sous-titre bi. nekkoon euh, forêt. Euh, forêt ak. savane ñoom ñaar ñoo composé. Euh, végétation. mu ngoog ah, ah monsieur Lo du noonu la mu ne waaw ah, quoi la mu ne la végétation la. oui nag ci biir végétation am na lu ñuy wax la forêt. la am na lu ñuy wax. la savane la il a bien compris kon <laughs> macha allah classe bi tamit classe bu ay ay yu mokkal la jaxate waaw. dugg duggal ñu ci duggal ñu ci alxuraan ba xam yow fan nga yaay xool saar war a neex nga tibb fa tuuti rek indil ñu barkeeloo ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني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 suraat la Youssouf sourate eh, Youssouf suraat bu neex boo xam ne suñu borom bi mu koy tàmbali nee maa ngi leen nettali xissa bu neex nu nahnu naqussu alayka ahsanal xasas macha allah jërëjëf koy santu bu baax di ko gërëm jërëjëf monsieur seloo kon ñu ngi lay sant bu baax jërëgeen jëf ba tey kon mbokk yi ñoo ngi ci biir eh, excellence Serigne Mbacké soo yegg nañ ci classe yi nekk ci kaw ci benn ci classe yooyu eh, ñoo ngi ci ab classe u kon sëñ Abdou léegi yow it dañ lay bàyyi nga wéy kon présenté ñu classe bi classe bu mu doon ak euh, lu ñu fiy jàngalee. macha allah Cheikh Bachir comme ni ñu ko defee ci yeneen classes yi tamit école bi moom ay classes yu xaw a euh, takku la daal bii mooy classe CM2 fii bu dee arab ñu ngi koy wax mutawassitu saani wala safu sadis al ibtidaay léegi bii moom it dafa am alif ak ba am a b dafa am daal dafa mel ne benn bi mi ngi nii seen jàngalekat bi mooy jàngalekatu arab bi oustaz Mbaye Gueye la tudd xam naa am na jàngalekatu arab monsieur Dieye la tudd. moom mi ngi ci beneen classe bi ci des xam naa temps bi daf fekk ñu génn daal mais classe baa ngi nii comme ni yeneen classe yi mel ne franco arabe la daal comme li ma waxoon ci classe bële noonu la daal mais li ñu ci yàlla di dimbale mooy année bu jot saa yu ñu ci demee tamit vraiment dañ ci am ndam ay 98 pour cent 99 pour cent la ñuy am examen loolu yaakaar naa effort la bu mag a mag a mag te classe spéciale boobee ñu bàyyi ko woon noonu ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom laa la waxoon ne si ne dañoo mokk alxuraan ñëw bu ñu defee ñoom ñaari at ñetteelu at ba fii la ñuy ñëw. te dañuy gis ne résultat yu baax la am ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne si ne buñ defee buñ sax li nga xam ne mooy essain départemental wala nangam ci bopp bi la ñuy nekk kon mu mel ne euh, formation ba ñu am fële baax na di ànd di yéeg ak ñoom nii daal lii mooy classe CM2 jàngalekat ngi nii arab lay jàngale mooy Oustaz Mbaye moo leen yore comme ni ma la wax woon ci cinquième tamit lépp lu ñuy jàng ci programme français bi état bi jàngale bi nga xam ne moom la école publique yi jàng des koy jàng ba pare nag daal di garde yàlla li ñuy wax arab bi arab bi li tax ñu koy jàng mooy diine ji Ah, li nga tax ñu koy jàng mooy làng bi du jàng ko pour nekkub arab du jàng ko war a pour nekkub naar waaye dañ koy jàng pour suñ diine waaye dañ koy te diine nag mën ko am mukk te déggoo langue bi moo tax ñu di ko jëfandikoo mais lépp loo xamante ne seen école publique la koy def ci français boo ñëwee xale dañ ko def nii nga leen gis nii maanaam euh, temps yi rek tànn nañ ci benn élève ma nga nee taxaw ma nga nee toog ne demoon na dicté waaw ci département bi demoon na euh, dicté waaw kon te gis ko xale bu tuuti la ne mais macha allah kon daal école bi mi ngi nii daal Cheikh Bachir waaw jërëjëf sëñ Abdou jërëjëf jërëjëf Saz euh, vraiment yow day moom day suñu wëlëre wu yàgg moom nit nit ku baax <laughs> ñu bàyyi la yow nga sànni ci ay kàddu rek euh, école bi ak classe bi nu ngeen gisee liggéey bi jërëjëf ok asalaamaaleykum wa rahmatullah ah am nañ mbégte bu ci teewaayu euh, <coughs> ni ngeen ñëwee reportage bi xam naa ni ni ko Oustaz waxee rek pour tënk rek <coughs> classe CM2 bi ñun ñoo ko yore Euh, man ak euh, monsieur Dieye ci France bi man maa yore parti arabe bi waaye ni ko Oustaz Duguay waxee rek ci euh, programme classe bi yàgg nañ di ko yor du lu bees ci ñun te itam ñoo tànn njàng meeg njàngale mi mm, def ko suñu métier ci loolu nag ñu ngi ciy sant sëñ Motoda Mbacke mi nga xam ni moom moo fi sos li rek di santal tamit baax sëñ Mamor mi nga xam ni ginnaaw ba suñ ma suñ suñ Motoda jógee moo liggéey bi moo ko moo ko mujjee moo ko mujjee gum te pousse école bi nag comme ni ko Saab Duggee waxee rek ñun moom liggéey rek lañ xam waaw xamuñ lu liggéey te tamit fexe nañ ba résultat yu baax yi nekk euh, ci daara ji ñun jàkk nañ ñun liggéey guñ dara ñun moom saa yu ñu xëyee rek ni ñuy fexe euh, luñ am ren bu déwee ni ñu am lu ko ndax bëgg-bëgg baa ngi fi volonté baa ngi fi xale tamit wax dëgg yàlla euh, ay jàmbaar lañ seen waajur tamit wax dëgg yàlla confiance bi ñu am ci ñun ñun lépp lu ñu man ci école bi tey dañu bëgg école bu turam ndax centre de Al Azhar ñu wax te excellence boobu moo tax loolu moo ñuy poussé ba ñu dem saa suñu xëy rek lépp lu ñu man danañ ko def ci liggéey bi ñu ngi sant nag euh, sëñ Fallou Bousso baax euh, ci nga xam ne mooy idaara bi yooyu direction bi Ousseynou Abdou Guèye itam dañ koy sant ndax kenn ku ne xam ne ne euh, feccu liir bu neexee ndey ji moo jàpp ci wagg yi te daa mel loolu feeñ na ci liggéey bu baax ndax ci muy guddeeg muy bëccëg lépp waxtu mu laaj ci école bi mu ne fii dafii ne sax ñun dey vacances yi mais ñoom duñu vacances yi ñoom fi ñu toog kon nag yaakaar na ñu ne di sant baax ñu ngi lay sant seen daam bu baax a baax di la ziar di kontaan bu baax baax ci reportage bi sëñ bi ci cameraman bi ñu lay sant bu baax a baax kon ñu ñaan daal nga ma dong yi daal ñaanal a baax xam ne suñu xol sedd na baax kon ñu ngi taxalu foofu. waa kay waaw classe seconde SA la ñu ngi def euh, cours anglais ci njiitalu monsieur Balla monsieur Leye kon mooy classe bi euh, professeur. Mhm. cours bi naka lay demee. waaw comme d'habitude rek <laughs> waaw comme d'habitude rek hmm. waaw ñëw dispenser bi dispenser cours bi hmm. forme question réponse hmm. l'anglais c'est une langue vivante ah, effectivement on privilégie la communication très bien c'est ça tey ci cours bu ngeen nekk euh, on parle de word formation la formation des mots voilà comment les mots sont formés nu ñuy tëggee baat yi voilà nu ñuy tëggee voilà il y a des mots on a besoin de préfixe on a besoin de suffixe etc macha allah euh, euh, noo gisee aussi compréhension niveau élèves yi. voilà ici on a de de très bons élèves. voilà qui très disciplinés. et puis ils ont de la volonté aussi. voilà ça ça ça je le dire. quand même ça euh, on a du plaisir à enseigner ici. vraiment c'est de c'est de bons élèves. ils ont de la volonté aussi. ci hmm. mu ngoog euh, jërëjëf proviseur léegi dañuy introduire benn élève yaakaar naa moom sax mooy présidente gouvernement scolaire bi ci fii ci école bi soxna maam Euh, an ami bu Aminta Bousso euh, mogoog euh, ma Aminta ñëw nañ tey ci lycée bi doon def découverte visite ci biir école bi yéen ñi nga xam ne yéen a yore gouvernance scolaire bi nu ngeen gisee doxalinu jàng bi fii. waaw sëñ bi ñoo ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax tamit waaw école bi nag ñun ren lañ fi ñëw ay nouvelle lañ fi mais niñ gisee doxalin bu wax dëgg yàlla doy nañ te tey jii buñ ñu laajoon tamit comme ñu ñeneen ñu bëgg a ñëw dañ leen encouragé bu baax a baax a baax ay élèves yu yu sociable ñoo fi nekk en plus professeurs yi aussi ñoom ñëpp daal vraiment ay nit yu baax lañ macha allah. conditions yi favorable na euh, calme na amul bruit yu grave yi am ci yeneen école yi gens yooyu noonu yëpp doo ko fi dégg euh, première L prime ak L L2 ñoo bokk ñoo ànd fii waaw moom. ñu nekk def pour euh, benn cours anglais waaw ci digal ci njiital sëriñ monsieur Sylla le ñuy def cours euh, science physique ci njiital monsieur Sey kon mooy ñu ma sunu sunu classe première en ah, sciences physiques allah. SA xale yu gàtt yi la. <laughs> tarkal ñuy def cours euh, SVT euh, moom ci njiital ak monsieur Ndom professeur de SVT kon ñu ngi nii daal moom ma ngi lim waa première s incha allah. laboratoire bi maanaam fi maanaam xale bu ñu amee lu mel ni ay expérience yu ñu def lu mel ni ay SVT science physique moom prof yi fii lay ñëw di di ko defal di ko defal ak élèves muy aussi laboratoire bu am solo ndax euh, bi ñu koy jënd en deux mille dix huit deux mille neuf moom defoon nañ ci alal yu bare bare bëri ba tax daal moom xale yi moom ñu ñu ngi ko jël ñu koy jëfandikoo bu baax. comme ni mu waree ay lu mel ni ay matière SVT science physique ñooy matière yi nga gën a xam ñoo ñoo soxla. jërëjëf jëf mbokk yi ci ànd bi ak seen télévision As-Samadiyya TV mbokk yi ginnaaw bi ñu bàyyi ko foofu ci excellence euh, Serigne bu Bousso ci garage yu Daaru Muxti xam ngeen ne directeur bi di Serigne bu Bousso Hassan mi ngi doon wax école boo xam ne euh, foofa la bokk waaye dañ ko euh, indi fi nga xam ne moom moo di fii ci xayra nga xam ne lépp loo xam ne jëm na ci wàllu lycée bi. classe yi euh, fii la ñu ko indi ngir mbir mi gën a yaatu ndax xam ngeen ne foofu waxoon nañ ne demande bi dafa xaw a bari tellement que ñëpp duñu xajandoo foofu euh, euh, kon mooy solos ñu indi fii kon lenn ci classe yi muy lycée bi nga xam ne kon euh, li ko tàmbalee seconde ba terminale xëy na kon danañ ci gën a am ay leeral ndax ñoo ngi nii ci wetu ki nga xam ne moo di proviseur bi Serigne Bassirou géey mi nga xam ne miin nañu ko bu baax a baax a baax ci wàllu système éducatif bi diggante tubaa ak Mbacké surtout foofu ci Mbacké nga xam ne ñun ñi fa nekkoon xam nañ bu baax a baax ne liggéey ba mu def ci euh, CM Mbacké 4 boobu euh, liggéey bu ama am solo la euh, lu ñuy gën di dugg ci biir école bi rek muy excellence Serigne Mbacké Bousso dañuy gën di gis ay jëmm yoo xam ne mooy tax ñu xam ne résultat d'excellence yi kon du hasard ay nit ñu am solo ñoo ko liggéey ba mu agsi fii proviseur kon ginnaaw ba ñu la nuyoo ziar la ndokke la bu baax a baax ñu bàyyi la nga dikk ak ñu nag ci lycée bi nga xam ne benn la ci pàcc la ci école Serigne Mbacké Bousso bi nga xam ne moo nekk foofu ci garage Darou Mouhty fii classe yi naka la fi tëddee ak itam programme bi nga xam ne moom ngeen fi amee ak euh, seen i résultat noo ko mën a leeral rek allah ci ab tënk ci wàllu interview bi. Euh, asalaamaaleykum sëñ Bachir di am mbégte mu yaatu ci seen ñëw gi fii ci centre Serigne Mbacké Bousso bi Xaayra comme ni ko waxee rek moom fii maanaam moom euh, école bu mag bu mooy mooy mooy ndey yi am ni ko waxee bi bi ñu ñëwee ba 2018 la ñu la la ubbi fii ay classes secondes. seconde euh, amoon na seconde L am seconde S ñu de ñu ba euh, at mi di école bi di yokku di yokku ba euh, ren jii am nañu am nañu classe yëpp maanaam bi ñu ubbee école bi 2018 ñu ñu toog ñetti at la am amoon suñu première promotion bu doon day def bac yàlla dogal ñu am ci ay ndam ndam lu yaatu ba yàlla mayoon sax moom ñaari élèves ñaar suñu ñaari élèves. yu admis woon ci école militaire de santé ba ren jii ñu fa def ci seen seen troisième am ay élèves yu admis woon ci EP ESP e, e ak ak EPT e ñoom it ña ña nga foofu di jàng ba ba ba léegi nii loolee maam ndam loolee di di wéy di wéy ba ren jii ba daaw di mos xam naa at mu nekk daal moom ñu sant yi ngi sant yàlla bu baax ndax at mu nekk yàlla defal ay ndam lu rëy rëy ba daaw ba daaw daaw rek euh, am na ay ndam lu rëy ndax bu ñu seetee euh, classe yi fi nekk nii am nañu euh, ñaari seconde benn seconde L ak benn seconde S am nañu ñetti première benn première S1 ak benn première S2 ak benn première L L prime ak L2 ñu ñu boole leen am nañu aussi ñaari terminal terminal L prime ak L2 ak benn terminal TS ba benn terminal euh, sd loolu moo fi moo fi am na ci ay classes yi ren jëlee maanaam bu ñu seetee daaw li fi am ci ay résultats ndax euh, moom it moom ñu sant suñu chance la baax ndax euh, am na ñu ay résultats yu baax daaw ci bac bi ndax bu ñu seetee lu mel ni bi. amoon nañu pourcentage euh, euh, soixante dix soixante dix sept virgule soixante dix pour cent soixante dix sept virgule soixante dix pour cent lañ daaw l bi ñu amoon quatre vingt sept pour cent l bi ñu amoon cinquante pour cent waaw bi la boo seet ñaar yëpp moom ñett boo seet boo na boo boole résultat yi lépp ñu amoon un euh, total de soixante quinze virgule quatre pour cent ci bac daaw bi léegi ba tey ci wàllu bac bi. xam nga léegi maanaam bu bac bi jeexee dañuy def benn benn classement au niveau régional yàlla dogaloon euh, ñu jël ñaareel place bi gannaaw liste d'excellence bu ñu bu ñaareel ndax maanaam bu seetee moyenne yii fa ëppoon daaw ci bac bi ci région bi mi ngi doon doon 17 30 sur 20 yàlla bi ko ko jox maanaam mi ngi mi ngi jóge woon euh, liste d'excellence bu ñaareel ñi ñu topp ca am une moyenne de 17 sur 20 ci euh, baax yàlla ci ci xale bi yomtoon nam Serigne Mbacke xumm moo ko amoon daaw ci wàllu aussi euh, résultat examen yi yi yàlla dogal ne amoon nañ daaw benn élève bu bu ci mi ci école école euh, de santé militaire bi am ni aussi ci ci EPT yàlla dogal aussi moom ñu tànn ko ci maanaam xale yi ñu tànnoon daaw pour ñu war a defoon école prépar école lycée préparatoire bi ñu am nañ ci kenn maanaam kenn ki moo moo jël moo jël ñetti place yëpp yaay waay mais yàlla dafa dafa dogal mu génn dem jàng ci biti réew. am na aussi ay xale yoo xam ne moom am na fi am fi bac ñii bari ñi ngi ñi ngi Maroc ñi ngi France daal moom alhamdulilah daaw bi ñu bi ñu defee classement bi gannaaw lycée euh, lycée euh, bu Njaareem ñoo si topp ñu jël deuxième jiitu fii ci si rajo bu dee département Mbacké moom ñoo fi ñoo fi jiitu woon ci bac bi avec mooy moyenne di 17 comme ni mu wax ndax moom daal moom loolu daal mooy ci ci tënk mooy euh, suñu résultat yi xam naa nag moom su ko si sant yàlla baax di di di sant yàlla aussi euh, waa direction bu Al Azhar bi ndax moom lépp lépp ñoom la ndax euh, ñoo ñoo xalaat ñoo am ñoo am xalaat xalaat bi créé école bi fii jox ko vraiment ay conditions yu baax xale yi moom vraiment ñu ci ay ko après dañu gis classe yu am yu yu yu am respect norme yi amul aussi ay yenn effectif yi ba tax moom daal xale yi ñu ngi jàng ci ñu ngi jàng bu baax te euh, yàlla mi ngi yàlla daal mi ngi dimbali incha allah. Euh, loolu mooy euh, kaddu yi nga xam ne moo jógee ci proviseur Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne macha allah dégg ngeen résultat yu am solo yi nga xam ne. Euh, école bi def na ko atum daaw nga xam ne ñu arrivé premier ci département bi deuxième dans la région de Diourbel loolu yaakaar naa lu am am solo la bu ko defee kon xam naa ni mu ko waxee rek danañ gis classe yi en image ci kanam tuuti ak sunu caméraman Omar saar kon léegi mbokk yi euh, yaakaar naa ne noonu ngeen koy séenee rek noonu la demee euh, gis ngeen classe yi gis ngeen école bi école la boo xam ne benn la ci banqaas yi yi nga xam ne moo bokk ci institut Al Azhar Serigne Mbacké Bousso bi nekk foofu ci garage yu Darou Mouhty kon mbokk yi jërëgët jëf jëf mbokk yi ginnaaw visite bi nga xam ne def nañ ko ci biir classe yi gis ngeen classe yu wuute yi nga xam ne dugg nañu fa performance yu am solo yi nga xam ne moom la jàngalekat yi di def foofu ak élèves yi ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax ndax école bi maa ngi soog a xam secret bi nga xam ne moo tax mu wuyu aw turam muy excellence benn muy professeur ay professeur d'excellence lañu élèves yi aussi gis nañu ne ci biir élèves yi ay élèves yu bëgg li ñuy def lañ ba pare aussi ay élèves yoo xam ne yu excellent lañ kon faw résultat bi kon dina nekk ay résultat yu excellent ñoo ngi nag euh, ci bureau euh, ñoo ngi ci direction bi bureau ki nga xam ne moom moo di modèle bi directeur bi fàll bu Bousso Hassan bu ko defee nag danañ seq ak moom waxtaan wu tënk woo xam ne dana jëm rek ci gën a leeral mbiri école bi ak daara ji kon euh, sëriñ bi ñoo ngi euh, lay nuyu di la ziar ci télévision As-Samadiyya TV tey ñu ñëwoon doon nemmeeku si daara ji nga xam ne ñu bari ñu ngi koy dégg kon warteef la ci télévision bi mu ñëwoon ngir xool liggéey bi nu muy demee bu ko defee nga leeral nu nag dëgg-dëgg excellence euh, ni nga xam ne noonu lay doxalee liggéeyam programme bi nga xam ne itam moom la tëral ba saa su nekk bu résultat génnee mu nekk ca kaw ay résultats yu am solo ñu bàyyi la kon nga ubbi foofu incha allah. li ngi leen nuyu baax di la dellu nuyu jaaree suñu nuyu màgg ci mboolem ñi nga seqal liggéey bi ci As-Samadiyya TV di jiitu sëñ Abdou Samad di rafet lu baax liggéey bi nga xam ne ñu koy def ci tasaare njàngaleem sëñ bi waaye itam tasaare liggéey bi nga xam ne nii bokki taalib yi ñu ngi koy def dem jëm ci luy jëmal yoonu murit waaye lu jëmmal njàngaleem sëñ bi ak lu jëmal ak nit ci kaw suuf ñu ko koy ñaan su borom gën koo dëgëral gën leen dëgëral yéen ñu koy jàppale ci liggéey bi tam dëgëral ñun tam ba yéen ñi am ci liggéeyal ko sëñ ñu mën koo liggéey <coughs> ñu mën koo liggéey ci gën jaare feti anam ni nga ko gisee nag ni nga ko waxee nag bi ngeen ñëwee ci daar ji gis ngeen fi mooy mahadul asar sëriñ Mbàkke Buso Lazare bu ñu duppee bàkke Mbàkke su moom ngeen ñëw tey nii mu nekk ci gaaraas Daaru Moxti ci Madiana 3 muy école boo xam ne nii nag ñu ngi ko ubbiwaatoon ci atum 2008 2009 ci la ñu tàmbaliwaatoon jàng ci façon bi ñu ciy jàngee nii effectif bi fi nekk jamono yi ñu toll nii nag war naa toll ci presque 2000 élèves ay et quelques ñoo fiy jàng ci ay jigéen ak i góor boo xool itam jigéen ñi ñoo fi gën a bari góor ndax booy xool 60 pour cent ci élèves yi ay soxna lañ ay jigéen lañ kon muy daara joo xam ne nii mi ngi def liggéey bu am solo ci kilifteefu sëñ Mamoun Mbacke mu Cheikh Moutada waaye ci kilifteefu sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ne ni moo jiite liggéey bi liggéey bi ni ngeen ko gisee ci biir classe rek ñun biñ ñu fi indee ci atum 2008 lañ fi nekk bi ñëwee njàngat bi njëkk a def mooy gis nañ ne daal njàng mi ci Sénégal am na jafe-jafe bu ci nekk mooy dañ ko def ñaari xeetu njàngin am ñu ne ñoom diine la ñuy jàng am ñu ne ñoom àddina la ñuy jàng ci misaal tey école arabe yi ñu xamoon bu njëkk yëpp dañaa wax ne ñoom diine la ñuy jàng day mel ne njàngum àddina bi seen yoon newu ci woon nu ñuy saytu àddina bi ak yeneen yi soxla day mel seen yoon newu ci woon ñu gis ne njàngale moomu am na lu ci manqué woon mooy ne nit ki xëy na mën naa xam diineem waaye diine boo ci génnee àdduna dara da juróotu des ñu gis ne kon am na euh, jafe-jafe bu ne ci njàngam ñu gis ne njàng yoo xam état moo koy saytu boppam tam ñoom dañ la jàngal xëy na lu jëm ci science ak addina beeg ba nag lépp lu jëm ci diine ak jikko yu baax day mel ne dañ koy sàggane ñu gis ne foofu tam ka muy formé génn nekk di koo xam ne nii xëy na mën naa nekk scientifique pur waaye nag dara ay jikko ak moral yu baax du ko am te muy jëf jur ay jafe-jafe yu méttee métti ci dundu askan ñu gis nag ne ñun bi ñu ñëwee ñu xalaat nag ne kon war na noo xool benn solution boo xam ci lañuy jaar ba fu nekk la fa baax ñu jël ko boole ko nag jaar ci weneen yoon woo xam ne dañ ci mën a créer meneen njàng moom dana gën a wuyu li nga xam moom la askan bi soxla ci lañ daal di gën a sóobu ci li système bi ñox franco arabe franco arabe nag boo ko déggee mooy njàngale mi nga xam ne nii li ñuy jàngale ci école publique yu gouvernement bi programme boobu moom la ñuy jàngale di ko jàngale ci làkk tubaab tam bu ko defee nag yokkal ci xale bi nag arab bi làkk bi ak diini ji nga xam ne xale bi day jàng arab tàmbalee ko CI ba terminal moom day jàng làkku arab bi jàng diine ji tam ndax xam nga arab mooy jumtukaay bi nga xam ne nii mooy tax nga mën a dégg lislaam lislaam mëni su ko dégg te jàngu arab moo tax ñu boole leen loolu ñu ko jàng bu ko defee booleeg nag programme officiel bi nga xam ne jàng jotaay bi loolu lañu commencé fii commencé ko nag classe C yi dalal ci ay xale tey dem ñoom bañ am certificat nga xam ne tey diplôme yi ñu am fi mu nekk nii tey état moo leen koy jox comme ni mi koy joxe ñeneen ñi dañuy am def certificat def BFM def bac yëpp nag bokk ko dongo yi Sénégal yëpp ni ñu koy bokkee ak ñoom noonu la ñuy demee ci atum 2014 ci lañ njëkk ñu wéy ak ñoom ubbi classe sixième ba ci atum 2018 ci lañ njëkk am promotion bi nga xam ñoo am def seen BFM bi ñu amee BFM nag ci beneen fa nekk fa xam naa da ngeen fa jàll fa la leen di jàllale boobu benn école bi rek la fa la ñuy defee seconde première ba terminale ci 2021 nag ci leen njëkk a génne promotion bi nga xam ñoo am bac bi ñu xoolee liggéey boobu nag gis nañ ne xale bi tey yi ngeen xale yi ngeen gis nii tey fi ne leen war a xam seen diine moom li lépp daan ko xam ñi ci jàmbaare dañuy mën arab bu baax waaye du teen fi nekk ni boo leen yóbbuwoon ci école tubaab bi kese kese ñooñu du leen yóbbul dara wala sax ñoo leen di man ci fànn yu bare bare te loolu def ne bu ngeen laajtee ci biir da ngeen ko ci xam liggéey boobu daal moom la ñuy def fii liñ ci gënoon a jublu nag mooy dañoo gis ne am na lu nu ñun lu baree bari tey lu bari buñ ko soxlaa dañ koy jëggaani boo soxla ab docteur ci misaal ab fajkat da nga koy jëggaani ndax njàng mi daan jàngale dawul waajal nit ñoo xam ne ay médecin la ñuy doon ingénier boo ko soxlaa noonu architecte boo ko soxlaa noonu lu bare bari bu ñu ko soxlaa dañ koy jëggaani ñu gis na nga jëggaani googu nag am na lu ñuy jural ndax ñañuy xëy na duñ xam suñu aada ak suñu cosaan suñu démb ak suñuy valeur bokkul wuñ ko day feeñ ba ci affaire architecture bi nga gis nii léeg ñu tabaxal la loo xam ne nii architecte bi koy tabax nga bëgg a lu mu doon dëgg-dëgg xamul say aada ak suñu bu ko dem tabax façon loo xam ne ni dëppoo ak sa sa diine far loolu lépp nañu gis ne la koy mën a dind nag mooy former suñu bopp ay xale yoo xam ne nii ëllëg ñoom loolu dañ koy mën a féetewul loolu nag yàllaa ngi ni ciy dimbale bu baax a baax ndax tey am nañ fi ñoo xam ne ngi def série S1 def S2 ñeneen ñi def L2 yëpp léegi dañ koy génne fii booleeg nag LAR mooy ñuy def enseignement arabo islamique ñoom it dañ ciy génne bac yooyu yàlla def naa ñi ci njëkk a itam bu ngeen leen toppantee da ngeen ñi école yi gën a mag ci Sénégal fi mu ne ña ngi fay nekk dafa jàng ñeen ñi ngi def fac médecine ñeen nekk santé militaire ñeen nekk école normale école supérieure polytechnique bu Dakar ñañ ñu école polytechnique bu Thiès war a génn nekk nekk ay médecin ñi nekk leneen ak leneen ñooñu ñi ngi séntu ne fii ak at yu néew dañ génn moom produit liggéey daal di commencé feeñ ñu gisit ni am na ci xale yoo xam ne ña nga France di wéyal seenum jàng ci affaire génie civil ñeneen ñi leneen ak leneen yi nga gis yëpp daal ñu ci jàng am na ñu génne tey ñoo xam ne ngay wéyal seen jàng foofu ñu gëm ne ñooñu nag bis bu ñu ñebbisee nag ñoom def nañ ñoom ay melokaan yoo xam ne nii jàpp nañ ne sax na sax goo xam ne nii ak fu ñu mën dem wóolu nañ ne ñoom lay sopp ñu bare bari mën leen bañ a sopp ñooñu nag bu ñu dellu see gëm nañ ne liñ bëggoon di ko séentu ci ay nit ñu war koo taxawee ñoom danañ ko mën a taxawee dañ ko taxawee gën jaar rafet anam loolu mooy politique bi nga xam ne nii moom la ñuy doxal fii ci école Al Azhar Serigne Mbacké Bousso ànd ci nag ak kilifa yi nga xam ñoom lañu seqal liggéey boo gisee nag xëy na résultat yi ngay waxtaan noonu léeg-léeg wax dëgg yàlla bañ fi duggee ba léegi itam résultat yi dafay yokk première promotion bi ñu fi def muy certificat ñi nga amoon 58 pour cent mooy première yaakaar naa ne daaw bu ñu xoolee résultat yi ñu am CFE quatre-vingt-quinze pour cent àgg nañ fa boo xoolee BFM bi ñu ngi ci daaw ñu ngi def cent pour cent soixante-treize candidats la ñu amoon soixante-treize candidats yëpp jàll nañ seen BFM tey ñu ngi def seen boo demee terminal bi naka noonu série S dañuy génn ay soixante-dix-sept pour cent soixante-dix-huit jëm noonu L bi am na ci L L prime bi daanaka presque cent pour cent la boo demee ci L2 bi moo ci gënoon a woyof daaw loolu nag li ñu ko may mooy liggéey bi ñuy liggéey fii ñun liggéey équipe la ñuy liggéey xëy na ñun ñoo ne ci bopp bi waaye man naa wax ñun ñoo ci gën a tuuti liñ ciy def moo tax équipe boobu nga xam équipe bu soudée bu dynamique boo xam ne nii wax dëgg yàlla ku nekk am nga yéene def liggéey bu am solo ci fi nga nekk ku nekk ñu bàyyi leen sa conscience nga liggéey sa conscience bu tranquille nga xam ne lépp looy def yaay xool ba gis ni lii daal wax dëgg yàlla jàpp naa lii laa war def nga dec moo tax du contrôle bu mettee tax du sañaxal gu méttee tax waaye dañu leen libéré ku nekk sa xool sa conscience ngay liggéey ak moom te gis nañ ne loolu bi ñu ko defee am na résultat bare baax baax boo am solo boo xam ne nii mi ngi koy jur kon daal àlasar suñu bu bisoom am na ci kënk mooy loolu daal muy liggéey boo xam ne daal ñu ngi ko fi def di am yéeneen mu jëm kanam nag gën koo lawal ci barab yu baree bari bu yàggu rek ubbi nañ benn école fi ñuy wax jàjj jaaji mooy ci booy dem yoon Touba Belal ay 10 kilomètres jëm noonu foofu lañ ko ubbi xëy na amagu solo waaye moom bâtiment baa ubbi nañ ko tàmbali faa jàng di fa jàngin njàng mel ne mi ñuy jàng fii rek nga xam bu ñu sañoon daal bu ñu amee li ñu bëgg daal daañu ko lawal ba biir Touba moom danañ fexe ba ci bare bari ñu implante wu fa di ko fa doxal suñ demee ba mën a génn itam nag ñu génn dëkk bi loolu daal mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñuy yëngatu fii. xëy na benn laaj rek muy gis nañ fi benn classe wala classe yoo xam ne ay classe spéciale lañ leen tuddee classe spéciale yooyu euh, lu tax ngeen sos ko ci biir école bi. yi dugal ñu dugal ci njàng mi ci la bokk xam nga tey ñun fii ci Touba xale bu juddoo surtout góor ñi jigéen sax ñëpp dañu leen yóbbu daara léegi nag bu ñu yóbbu daara da ngay jàng ba mokkal alxuraan am ñoo xam bu ñuy mokkal alxuraan day fekk ñoom fukki at ak juróom wala nangam yu teg kooku nag bu fekkee dafa ñëw nga bëgg koo defal cycle normal bi mu commencé CI dem C1 ba dem ba cm de nga xam gàtt gàtt lu mu néewnoo primaire dañu def juróom-benn at nga xam da ngay jàpp buy am certificat lu mu néewnoo day yéewtu ñaar fukki at ñu gis loolu nag day da koy xañ lu bare bari ci wàllum njàngam ak wàllu avenir am ëllëg ci wàllu liggéey yëpp ndax at yi day commencé di bari ñu gis nag ne ñu am na luñ gañe pertu ñu ndax am mokkal nañ alxuraan ñenn ñi mokkal nañ alxuraan ñenn ñi miin nañ bu baax a baax ñenn ñi bind nañ kaamil ñu gis nag ne ñooñu kon mën nañ leen a capté bu di capté mooy lan mooy dañ leen defal li ñuy wax formation accélérée boo xam bu ñëwee léegi dañ leen di taxaajal cycle bi surtout rawatina élémentaire bi nga xam ne ma ci misaal tey li mu waroon def juróom benn at ci ñett koy def bu ñëwee spécial 1 bi dañuy boole CICP boolawaat CE CE2 nga xam ne ñeenti at yooyu liñ ci waroon def ci ñaari at lañ koy def léegi nag bu ñu génnee foofu nag la ñuy door xool la ñuy topp jëm ak ñoom CM2 nga xam ne jàpp nañu daal xale bi daal bu fa defee ñetti at war naa mën a am certificat moom gàtt gàtt bu ko defee bu demee ci collège bi tam def sixième wane njàmbaate gu ma sëkk dañ koy may possibilité mu def cinquième bu ko defee nga xam ne moom ci biir juróom benn at ci lay def cycle élémentaire ak moyen léegi nag dem wuti bac bu ko defee retard bi mu ci wàllu at dootu feeñ lool lool ci am njàngam loolu mooy xalaat bi ñu am ci classe spéciale yi ñu gis ne moom itam mi ngi joxe résultat yu am solo ndax ñi ciy formé tey ñu bari ñoom bu ñu demee CM2 ci kaw la ñu nekk ci kanam la ñu ne ci kanam la ñu ne nga xam ne dañuy wane résultat yu baax a baax ñoom it am taxawaay mu solo loolu itam li muy tal rek mooy du ñu du ñu duñu delloo kenn xale bi at yu mu am ak nu mënti tool bu ñëwee dañ ko encadré fexe ba teg ko ci yoon woowu liñ dul nangu daal mooy nga ñëw nekk magum jëm bëgg a perturber liggéey bi loolu moom moom boo ñëwee duñ ko duñ ko nag waaye nag at moom du ñu tàqale ko élève moom li ñuy tàqale élève daal mooy élève bu tegul ci yoon wi war a tegu loolu daal la ñu lay sant baax di la gërëm ñu bàyyi la nga tëjal ñu jotaay bi am na solo lool ñu ñaan aussi yàlla sama a wéyal résultat yi ci daara amiin amiin jërëjëf jërëjëf suñu bés ñu ngi lay sant delloo cant a dellu santaat baax nag suñu Abdou Samad ci Samadiyya TV ci xalaat bi mu ci am ci fësal liggéey yu mel nii muy liggéey yoo xam ne yaakaar naa mat naa fësal lool lool lool ndax loolu rek mooy solution bi nekk nii moom maanaam jàng mënta ñàkk te mel ni njàng muy demee boor te mënta ñàkk alxuraan sax daf ne falaw laa nafar min kulli firqatin litafaqahu fi diin maanaam maanaam waxul ñëpp nañ dem jàngi diine ku nekk nag li nga war a xam sa diine pour ni ngay jaamu yàlla da nga ko war a xam loolu mënta mënta ñàkk waaye nag xootal gi ba nekk ci ab mufti wala nekk ci leneen loolu suñu borom dane na ko ñenn ñi def bu ko defee ñeneen ñi tam dem defi leneen loolu mooy li am solo maanaam ñii nañ nekk ay fuqaha ñu nekk ay médecin ñi nekk ingénieur ñu nekk architecte ñi nekk leen nag leen bu ko defee doon nekk ñu am ñun fa orienté waaye mbir mi ni mu doon doxee nga xam ñun baree bare ñun ci ñun ñi ci leen jaar mooy ñun ñëpp daanaka ñoo bokk luñ jàng surtout ñu doon yëngu nga xam ne maanaam dal boo doon xool ñi ci spécialisation yëpp ñi ci spécial ñëpp ñëpp ñu bokk luñ jàng loolu ñu gis ne xay na gàllankoor lay jur boo xam ñu ngi tàmbali di feeñ loolu moo tax ñu nekkoon kon système bi nañu ko jéem a vulgariser jëm ko tasaare ba ñu bari xool ko jàngat ko système boo gis nag am na ay manquement yi ci nekk waaye xëy dañuy ànd ak moom di liggéey di jubbanti système bi moom noonu la da dangay da ngay jubbanti ànd ak moom di jubbanti ndànk-ndànk doomu am masam li nga bëgg lépp itam nag ndax jamono ji nekk day am yu bees yu judd nga war a adapté kon noonu la ànd ak moom moo tax waxuñ ne système bu performant la pour cent am na ci ñu mat a joyanti ñi ngi joyanti ndànk-ndànk ànd ak moom di dox bu ko defee daal loolu daal mooy liggéey bi jàpp nañu daal am nañ ci yaakaar bu baax ci ne liñ ci bëgg séntu ko ci yàlla mën nañu ko ci defal li ma fàtte woon sax mooy programme bi Sëriñ Muntaxa Mbàkke tëraloon euh, ci jamono yi dañ doon ko tëralal mboolem école yi nekk ci biir dëkk bi programme boobu na fi ak nuñ ko dëra nuñ ko fi tërale loolu moom xëy na euh, ñi jiite daara ñi ngi ciy waxtaan ak ñi xam ñoo ŋànk programme boobu waaye li ci am solo moom mooy daanaka lépp benn rek la ndax boo xoolee tam naka jekk fii moom lu aju sëñ bi dañ koy jàngale téere bi ñoo xam naa jox daayil xaaj dafa dugg ci biir programme bi Masalik am na ci benn benn partie yoo xam dafa dugg ci biir programme bi kon xëy na waxtaan la boo xam ne nii dañ koy gën a xóotal ànd ak moom ci liggéey bi ndax lu baax moom foo ko mën di jëlee rek da jël moo tax loolu tam xëy na ñi ŋànk liggéey bi ñu ngi ci ci dox yoo xam ne nii ñu xool nuñ koy nuñ jëflante ak moom. jërëjëf euh, sëñ Fallou Bousso Hassane mooy directeur wu sëriñ euh, Azhar euh, Serigne Mbacké Bousso bi nekk fii ci Touba wetu garage yu Darou Mokhti. tey sunu tukki nemmeeku ci seen télévision As-Samadiyya fii la ñëwoon jubluwaay gi nag ni ko sëñ Abdou Samad Mbacké di faral di waxee rek bëggul gis lu baax loo xam ne dafay nekk ci ab roq rek eh, ñu bari duñ ko xam askan luñ ko découvrir mu ne loola dañ ko war a jëli génne ko ba ñëpp teg ci seen bët bu ko defee ñi ci war a jariñu ñëpp dem jariñu ca te gis nañ ne excellence bii nga xam ne moom la ñu nekk muy Al Azhar sëñ bu Bousso Euh, day mbir moo xam ne mën na nekk njariñul doomu aadama yëpp ni ko directeur falo bu Bousso Hassane waxee kon mbokk yi liggéey baa ngoog bu ko defee am na ci yeneen classe yoo xam ne sax di ngeen ko séen ca kanam euh, classe yoo xam ne ñi ngi foofu ci booru xaayra euh, seen ngeen ko ci image noonu sax bu ko defee kon xam naa ne incha allah loolu yëpp bokk ci liggéey bi nga xam ne rek mooy gën gee yaatal ndax fii day barab boo xam ne demande bi bari na te attanul dëgg dëgg dëgg demande boobu faaw ñu ubbi yeneen yoo xam ne ay annexe lay doon moo xam ci biir dëkk bi ak ci biir dëkk bi ngir mën a dékku demande boobu mu nekk lu am am solo ñu ñaan sama borom dafa leen ci tawfeex